bu doon complot man Mame Mbaye Niang maa wax bu doon complot du commencer ci Adji Sarr. lay commencer. bu doon complot ci li njëkk xew avant élection présidentielle yi ci benn salon de massage bu nekk Almadi lay commencer. lan moo fa bu doon complot ci histoire jigéen buñ génne ci réew mi yóbbu ko France mu dem Maroc. après yóbbu ko Maroc ci loolu lay commencer bu doon complot ci jigéen bu bëgg porter plainte bëgg jotaat ci alalam ci loolu lay commencer bu doon complot ci wax yi yu xewaat ci beneen salon de massage lay am. am na journaliste bu ko bind am na journaliste bu ko bind. Madiambal dama liir contribution am je me suis dit ni que kii bon peut xëy na day yëg bu doon complot avant élection présidentielle yi lay am. li ma lay wax nii yëpp am na fi. li ngay wax nii yëpp Ousmane Sonko da ci trempé. li may wax nii yëpp Ousmane Sonko la. mais lan la. li am première affaire bi lan la. déglu ma li am li am li am dama ni bu doon complot yooyu la ñuy commencé bu doon complot yooyu mooy am. et Ousmane Sonko et l'acteur de ces différents de ces différentes histoires là yi nga cité. soxna si c'est qu'on va pas se cacher c'est un coutumier des faits. ñi xam. yan preuve nga ci amul amul service de renseignement na na xëy dem wax wala mu xëy porter plainte li ñu wax ni na xëy li may wax amul service de renseignement wu àddina bi service bu xamul ni que noonu la mel ndaw si yow bu la neexee nga ni Ousmane Sonko nga gëm yow bu la ne man Adji Sarr laa gëm li mu wax man Mame Mbaye Niang Adji Sarr laa gëm. foo teg la présomption d'innocence. waaw ban présomption d'innocence ne ko ñoom maître El Hadj Diouf ak ñoom di wax. amul présomption d'innocence sama opinion personnelle Adji Sarr li mu wax dëgg la bu la neexee nga gëm ko fan laa teg présomption d'innocence Ousmane Sonko li muy wax bi mu commencé ba léegi dara du ci dëgg ci wàllu politique ci wàllu nen amul dara lu ci mës a doon dëgg Adji Sarr mosuma ko dégg mu wax lu dul dëgg foofu laa teg li may wax mënoo fekk jigéen ci bërëbu liggéeyukaayam egg ci kawam tiital ko def ko nekk def ko jëf ju ñaaw après dem toog sa kër xëy def conférence de presse woo journaliste yi naan waaw li may yëg sama yaram maa ko xam damaa xamoon xaw ma lan damaa amoon fu may metti ku am urgence ku am urgence médical ci salu suite bu ci ngay dem. yéen ak ni leen Ousmane Sonko lakkale di ngeen am loolu yëpp ci moom may mun a ngeen teg ko ci suuf may mun a déglu ma teguñu loolu ci suuf c'est que ñi man tàmmuñu di nee naa la jàmbal dama ko liir après je me di dit ni que voilà quelqu'un aussi waaw mais yow comme yow bu la neexee nga far. man faroo ma kenn. waaw non déedéet Madiambal dafa far président. te nëbbu ko xoolal bu la neexee nga far. bàyyi bu bu ma paree bu ma paree nga wax. en tout cas li wax amul kenn ku bokk foofu ku ko weddi nee na bu fekkoon ñun ñëpp xam nañ ni que lu mel nii naroon nañ ko am naroon nañ ci wax avant élection présidentielle yi et Euh, njiitu réew mi moo ni yëf yi bu leen ko utiliser may mun a lan la kompaloo di ut ci yow foo dee dem juróom benn weer ci gannaaw egg ci doomu jàmbur kuy faju dina dem dugg ci si summeeku ba set ñu sotti la ndox bu tàng tegal la ay fleur loolu Adji Sarr a ko wax. waaw mais mais. amuñu ci benn preuve. Sonko moo ni kompaloo la amuñu ci benn preuve. pour pourquoi ngeen bëgg a gëm ko gëmu leen Adji Sarr. gëmuñu kenn xoolal. xamuñu ci dara. waaw mais kon kon bu leen ci wax. bu leen ci jël yoon la xaar mu àtte. waaw mais ku nee na du dem ci yoon. nee na day dem ci yoon ah, ma ni ah, déglu ma déedéet. may mu nee na dafa yàkkamti forcé oh, oh, léegi moom ah, bu mu ko yàkkamti wallahi al azim dina dem ci yoon. gis nga pacte procès bi dina am. Euh, imam euh, yow doo ci xam dara xëy na monsieur Thiam <laughs> euh, yaa ngi. yaa ngi bëggatul dara ci Assane. yaa ngi fàttaliku. yaa ngi fàttaliku bi bi bi bi bi bi sallallahu alayhi wa sallam. jànguma alxuraan. Euh, perte xeexu Uhud. dellu Médine. dellu Médine ñu rey fa bàyyi am satu. déedéet. may mun a noppil. may mun a xamu ci dara xamu ci dara. <laughs> dellu Médine waajal medin di ajiwaat màkk ñëw bu buntu màkk ñu yónnee dab ko ni ko doo aj si signé ak moom pacte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam signé mu ne le pacte est sacré ci pacte boobu nangu woon na sax ñu dindi Mohamed l'envoyé Rasulullah parce que kii wax ak moom daf ni ko bu fekkoon Muhammadu Rasulullaay la kon duma ma xeex ak yow mu ni dindil dellu ni nañ toog ni nañ respecté pacte bi. lan nga bëgg a wax foofu. balaa imaam dañu ko leeralal. non may mun a da may déglu c'est que yow damay lay ñaan nga déglu ma déglu ma rek gis nga gis nga pacte boobu ni ni mu sacréwee loolu la Ousmane Sonko violé ak waxam ji la woon wonni na la ñu maye woon dañ koy nangu moom dafa décider wuññi suturaam dinañ ko ci jàppale parce que bu doon nit bu matoon kilifa bi ngay wax ak responsable opposant lu mel nii ku mu dal da ngay bàyyi bàyyi lan politique da ngay tekki sa ndomba tànk ci politique ci assemblée doo yàq ñi nga àndalal kon mu yombal leen nga dem setal sa der kon mu yombal nga tànn ki ngeen yaakaar ci yéen mu dem jiite mais vision moo amul waaye ut say booy ñu toog naan Cheikh Anta Diop waaw mais imam mbir moomu la histoire boobu lan non loolu li ma koy wax li ma koy wax li ma ko ci bëgg a wax mooy sacralité bi pacte am ak boo ko violé amatul diine mayatu la nga naan ay non nañu respecté li ñu mayoon kilifa diine yi ni non pour dëkk bi da day tontu ji te bu fekkee ne que dafa am ñu koy taalal këruj na leen wax nañu préparé wu dina wuyu ji da donc da ngeen engagé woon ci kilifa diine yi ne da di bàyyi lépp ci suuf ma ne déglu ay nit a ñëwoon ñaan njiitu réew mi mu ni leen nañ dalal na ñëpp yam moom mu defe ni yëf yi egg na fenn fu mu egg ba di génn du le wax tu ne peux pas être un pervers sexuel tu ne peux un délinquant sexuel di menacer nit ñi naan da ngay def lii wala da ngay def lee loolu jeex na c'est fini maa ngi ko dégg mu naan maa ngi remercier askanu Sénégal ñu ko ci loolu. mais monsieur ko toppoon yaay wax wala justice mooy wax. ma ni du man maay wax. justice moo yor dossier mais yoru leen dossier. mais dama ni day dem justice. waaw mais justice moo war a décider loolu. mais ma ni day de justice. day dem justice juge mooy décider du yow. mais day dem par force bu ko wooyee day dem. ah waaw. léegi amatul ñu woola la nga naan ay taxaw naa amatul amatul ñu woo la nga naan ay taxaw ci rond beek ay sénégalais bu dem taxaw ci rond ñu ni la dégagel nga bañ a dégager policier li mu yor bouclier la ak matraque dañ la fay jëlee ci kàttan. waaw xaaral imam wax ñu symbolisme bi lan la euh, histoire bi mu wax. non l'histoire du ko de la. waaw bàyyi bàyyi ma eggale ko. de de Uhud la yonent bi bi ñu ñëwee. Hmm. ni ko non nañ eggale pacte bi. daf ni yéen a ko wàcc takk leen jaas yi yéeg leen ci gëléem yi dañuy dugg màkk c'est la plus grande marche de l'islam vers la Mecque donc pacte boo ko wàccee nga wax ak ay nit di leen nax ci diine léegi mënatoo protéger wu ci diine yëf yi dafa am ñu ci bëgg a sol diine oustaz ba ko wax ni que mën ngaa dem ci sa waxul dëgg. oustaz mën ngaa dem mën ngaa dem ci salon bu di faj waxul dëgg amul oustaz amul addis. yow xamoo yow xamoo yow xamoo imaam la ñuy laaj amul hadis bu wér bu ñu mën a indi teg. ci loolu mais lu tax góor di nekk gynécologue di consulter jigéen. te ñun ñu nekk ci réew boo xam ne ñun ay musulman lañu. waaw pourquoi gynécologue bu góor du ñu consulter. gynécologue nga waaw lan moo tax masseuse bu jigéen mënul maase koo xam ne dafa feebar. mais maase wu ko. maase wu ko lu def. waaye ah, massage. xaw ma ci dara. loolu dañ ko mënoon a teg ci biir bii Ousmane Sonko dee wax rek Adji Sarr nee na dafa ñëw summeeku ba set dugg ci si ñu koy sottil ndox bu tàng moom mu summeeku sol silib dugg fekk ko fa muy egg ci ginnaawam ci ginnaaw ba koo jàpp mais mais attends li may wax nii <laughs> mais wax na ko li may wax nii wax na ko après nga bëgg ñu ñëw naan xaal rasulullah waa léegi non amul waa léegi cest à wax ji foofu la egg